aha kay heure ba jotati na fan la jotee fii nii ci live bi nga xamante ne Mamy Linguère Diop seen soppee seen xarit seen doom seen rak seen mag moo koy ànd ak yéen te mbëggeel gu mu leen bëgg rek rek rek rek moo tax muy ñëw di ci ànd ak yéen delluwaat di leen waxaat asalaamualeykum wa rahmatullah di leen nuyu di leen safoo di leen jox seen wàccuwaay bi gën a sell di leen masawu coono bu baax a baax a baax waaye di leen laaj itam naka njaboot gi ak waa kër gi yépp ngeen ko gisee. heure ba jotati na xëy na nag retard yi moom di ngeen comprendre que ne rek weeru koor moo mel noonu balaa ngay ndogoo ko def yëf rek temps ba day daal di daw euh, delluwaat di leen bëggewaat bu baax a baax a baax tey wax li nga xamante ne nii moo fi xew di mbas mi ah ñëpp a ngi ñaan ñi ngi def lu nu xam lépp waaye gis ngeen ne mbir ngi jégglu mi ngi gën di yéeme waaye yàlla suñu borom moom li may faral di wax rek wàcce wuñu fi ngir sonal ñu ay nattu yu fi jaar rek waaye yàlla na gaaw set wicc wicc wicc ba ñu fàtte ko toog di ko nettali di reetaan te kenn bañ a manqué kenn bañ a manqué le eh, barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko buur bu màgg bi defal di leen nuyu nag di leen laaj ba xam yéen noo leen def man daal xam leen ne moon naa leen wax dëgg yàllaam namoon naa leen ndax démb gisuma leen. te xam nga yéen tabaarkàlla macha allah man da ngeen may dundal mu ngi noonu man su ma toogee benn bës te gisuma leen damay daal dee am lu ma naqari <laughs> dellu siwaat di leen santaat te di leen gërëmaat bu baax a baax a baax daal di ñëw na xool ñi nga xamante ne comme lu mënta ñàkk faaw mu am ñu jot a dugg rek ñu daal leen di jox seen nuyoo ak seen wàccuwaay bi may soog a tàmbali gis naa sama doomu ndey sama xarit ah jatu lay buur mbaadaan taalibi Cheikh Mamadou Fadal boobu jatu naka nga def nag Euh, ba léegi maa ngi ndogu de mu taw a jeex jatu sama doomu ndey ana Cheikh Banne Roubé Diop bàyyi ko foofu ah euh, taalibe Baye Karim naka nga def taalibe Baye Karim su ma juumul moom dafa mel ni seet la sax de fan yii dafa mel ni seenoon naa ko fi daal muy def ay affaire de seet yooyu hmm, chéri taaw naka caat mbaa mu ngi si jàmm ab sa Diop au Senghor ah, euh, Eh, ab Absa Diop au Senghor Mouhamadou Bitey ah Asi Chéri Bamba Sill naka nga def soxna jaaxatulaay Kumba Mbay Adama Ndour Ndiaye soxna Diop Xadi Fàllu Gay ah, nuyu naa leen yéen ñëpp Ado Cissé Absa yow moom kenn du yow ndeysaan Ousa Senghor daba bàmba yow itam kenn du yow kenn du yow macha allah Barak Fall yow itam nuy naa la Abisi nuy naa la Soxna Saliou Fall nuy naa la nuy naa leen yéen ñëpp yéen ñëpp yéen ñëpp yéen daal Adama Diallo mami Rasoul mami noo def maam Jaara Joob Xadi hmm? Fallu sëy nuy naa la yow itam Aïcha Cissé naka nga def Ibrahima Seck Ramatoulaye Sow Aïda Dieng Soxna Diarra Eva Diongo naka nga def Maam Diarra Seck Ndella Ndoye Tima naka nga def Thiat Diaw maam naka maam Pendich si la sooda Marème yow itam egsi nga hmm? yéen daal yéen daal yéen daal faatu Ndongo yow dama lay faral di gis macha allah Kumba Mbay Rose Senghor Mariama Lay Dia Seynabou Fall Adama Sy Khoudia Mbay Dia Dia wanni biig naka Mauritanie maa ñëpp a ngi si jàmm naka yaa booy hmm? Aïcha Cissé nuyu naa leen yéen ñëpp yéen ñëpp yéen ñëpp waa Khoudia Mbay Khoudia Mbay noo def Eh, Ndeye Awa Eva Lo yow itam kenn du yow Oulimata Samb kenn du yow yow itam Nana Ba Ouza Senghor mm. Ibrahima Seck Ndey kooku moom sama jaam la moom mooy sama jaam maay sangam Ndey Saar kenn du yow kenn du yow macha allah. maa ngi lay nuyu di la ziyaar bu baax sama jaam bu gore boobu nga xam ne fu mu toll rek ma ngi may waxal xeeti baax baax te wallaay baaxuma sax <laughs> ndenc ak jaaw Alice Doki euh, ah sama sëriñ ñëw na léegi jataay bi neex Cheikh Abdoul Ahad borom Touba belel la bâtisseur daaray kaamil mooma kër mag moom mooma borom liggéey bu sell bi macha allah maam Vénis yow itam ñëw nga. Ramatoulaye Sy Baba yow it ñëw nga dol ci ramat euh, penda yaay Moustapha Tima ziar naa la ah Diouf Diop Abdoul Ahad waa man sama sëriñ ñi nag tabarakal la nag astu saw saax tey daal damay nuyoo ba ngeen doyal rek damay nuyoo ba ngeen doyal am benn problème li matu sàmb Sidi Diop hmm, jéggal loolu rek maam ku maam kumba maam kumba caw ci loo nekk Euh, nuyu nag ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñooñu moom du ma xaar sax pour ñu dugg pour ma nuyu leen ndax xam ngeen ne ñoom ñoo tey jataay bi la muy ko belle mat leen joor joob sama rakk ci kenn du moom hmm? ana ñi maasi sama doom saaxata lingeer euh, Nasra Fall Diop Diop fële ca France yéen moom kenn du yow ana Adja Mbaye Loum sama seex fële ci Allemagne moom itam nga xam ne dañoo nuroo ba muy daw yaram tabarkaal la hmm? nuyuwaat naa leen ziyaaraat naa leen bu baax a baax a baax a baax te di leen laaj naka ngeen yendoo euh, comme di ngeen ko gisee rek kon dañuy ñëw daal di door daal di ubbi waxtaan bi nag macha allah parce que bëgg naa nuyu ñëpp mais xam ngeen bu ñu ko toppee rek dafay waral nuyoo bi dafay daal di daal di jël temps bu baree baree baree bari te xam naa ne itam yéen ngi xaar waxtaan bi mais di leen sant te di leen gërëm man dama naan aw ma seen fay ndax koo xamul noo koy def nam la def a tax te ni ngeen ma def duma tàyyi mukk ci di ko wax kawe na sama njortu lool lool lool lool ndax ki la bëgg di la topp loo def mu neex ko loo wax mu neex ko foo nekk mu fekk la fa kooku amoo fayam amoo fayam amoo lu dul bàyyeekoo yàlla sunu borom mi nga xamante ne moom am na fay dafa am fay ñemewul bor moom mu fayal ma leen ndax yéen a ngay abonné ca chaîne YouTube ba ñi aboneegul tey soog a ñëw tey dem leen abonné ji Linguère Diop TV la ah gis naa ne itam yéen a ngi vu vidéo yi wax dëgg yàllaam boole ko seen ay commentaires yu rafet tabarkàlla yu neex a yu yuy nit ki mu ngi noonu yéen a ngi fii tamit ci page bi di aimer. di woo seeni nit di leen ko wax ñuy abonné kon yéen kenn du yéen kenn du yéen a ngi partagé video yi tamit ma pare man su ma xoolee commentaire yi su ma xoolee j'aime yi su ma xoolee partage yi damay xam ne yéen daal wax dëgg yàlla jar ngeen naa daw daw daw daw daw bay bëgg a dee ndax kii tëgg sax ku fecc la bëgg kii tàcc yi itam ku fecc la bëgg waaye kii wax moom ku ko déglu rekk lay xaar te yéen a ngi ko ca yéen a ngi koy def bu baax a baax a baax kon sant nañu leen gërëm nañu leen tey nag dañu ñëw indi waxtaan boo xamante ne euh, dafa lëmbee jamono lëmbee senegal ndax senegal dafa mel ne jaay fi nit doole dafa yomb lool lool lool lool te fi ñuy jaayee nit doole dafa doy waar parce que ki ñuy jaay doole yépp jigéen lay doon te ci li ñu koy jaayee doole ci sëy lay doon te bëgg sëy moo ko ciy dugal waaye xëy na ñàkk xam dina ko yóbbee ba ñu teg ko luñ ko warul woon teg wala ñàkk xam dina tax mu nangu lu mu warul woon nangu si sa soxna naka nga def yow yaa njëkk a laaj tey ba heure laay ñëw maa ngi nii <laughs> dina tax ñu teg ko sax lu ñu ko warul woon teg ma jàpp ne yooyu yëpp ci ñàkk xam sa ay yi àq ak sa ay yelleef la bokk ma waxoon leen fi ne leen loo xamul baatin ba doo ci mën a jariñu te ñu ci baree baree bari dañuy dugg ci mbir te duñu ko xam kenn ñaanul yàlla di sëy di tas waaye booy dugg ci sëy war ngaa mën a xam lan mooy charte sëy bi mais bis boo demee ba yàlla jeexal itam war ngaa mën a xam lan mooy charte jeex ba luñ la ca teg lu la cay xaar loo ca war a mën a fekk ak leneen ak leneen ak leneen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 nit day am wéeruwaay waaye rawatina ci jigéen jigéen am kilifa daf koo jàpp waaye booy dugg ci sëy na nga ca duggee ak sa ay kilifa ndax li may faral di wax rek jaaratulaay yi jeexuñu de mais Mamor Anta Sali yi ñoo dëdd ndax boo duggee ci sëy dugg ci ak góor gu xamul charti sëy xamul wareefu sëy xamul yelleefu sëy ak góor ñi nga xamante ne dañ lay nax ba takk la ak góor ñi nga xam ne dañuy ruube ak góor ñi nga xam ne dañ lay tëmbaaje bis boo demee ba sëy ba jeex nga bëgg a génn ñu taxaw ne la carrément euh, baal leen ma de baal leen ma salaamualeykum yéen waa kër gi baal leen ma de xam naa ne ñoom dañoo alayaawu direct yi rekk ba tax na ak loolu yëpp yëpp yëpp bu ca nekkee dañuy dem ba dara desul lu dul génn ci sëy ba te la lay bëgg a génn ca sëy ba yëpp ñoo koy def ndax ñoo lay yor duñ la téye nañ la war a tëye wala ñu yor la ngeen dem ba mënatu leen a ànd wala àpp ba dikk sëy ba war faa yem ñu taxaw nag ne la déedéet nag sëy bi nag du fi yemee nii wala sax ñu wan la carrément que ne ñoom dañoo doyal ci yow wëlbatiku wan la ginnaaw. dox dox bi ndax ñoom am nañ droit takk ba ñeent téye sa baat di ko lang-langee duñu la fase daanaka daal mooy rendi nit ki jëlee ko ci ginnaaw wala rendi nit ki jël buum takk ci baatam di ko xeet xeetal ndànk di ko xiit xeetal ndànk ba keroog muy dagg naka lañu koy defee mooy bi nga nekkee ci sëy bi amoo fa jàmm amoo fa salaam wala as gor nga dem nga ba gis nga ne yow lii mënoo koo dund nga daal di nag am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur dangaa bëgg a génn ci sëy boobee ñu ne la toogal xaar ma duma la may sa baat fase la fase sa doom duñu dundal sa doom duñu ko wodd duñu ko def leneen nga tooga tooga tooga toog nekk ci sa doom di naf nafi boole jëndum meew jëndum couche lijjantim àdduna feebar nga yóbbu hôpital yàq say nelaw dagg sa xaajub liggéey ak coono ya la ci mën a fekk yëpp yëpp yëpp yépp ba xëy suba doom ja commencé dëgër ñu ñëw taxaw ne la sama doom laa soxla loolu yépp li la koy teg mooy dangaa xamul ne yoon dafa am ci réew mi te charte yoon yooyu Euh, ah tey nag jotaay bi neex na nag sama jumelle ñëw na baal lay sa buri sëñ Mbacke maaram soxna maam Fane ma yow moom lu ma mën di wax ci farata bu ma la gisee Mbacke Balla dama koy dagg nuyu la <laughs> sama chéri nijaay yaayu sëriñ Saaliw ba tax na ñu téye sa baat di la xor ñoo ñal débat bi nag wax la ju ñu fi indi ndax fii damay wax ma ne poste la lettre bu ñu fi dugal rek. ci kàttanu yàlla fas nañ ko yéenee liir indi ko teg ko ci taabal ji ànd ceeg ku ñu ci ëpp xam-xam mu indi xam-xamam ne leen ko ndax réer amul na fi Nogaye Diagne na fi maam saaliw réer amul ñàkk xam fa ngay jaar moo fi am te jigéen ñu baree baree bari xamuñu fu ñuy jaar boo waxee ñu ne duma dem tribunal duma ko yóbbu ci yoon may wax ne bu dee rusul tàggee waruñoo am gàcca bu dee ñàkkee kersa ba fekk boroom kër gu toog ci biir këram mu rey ko tàkku saan ñu war koo rob timis njaboot gi war a jaaxle fu ñuy fanaan tàggee moom war sa ruus bu timisee bu ñëppuy julli ku ne mu fekk la fa nga nekk ne la bàyyi dem na ku xamul buur saay na danga ko naan pëkk pëkk pëkk ne ko buur dee na heure sàngam lañ koy rob yoon dafa am ci réew mi te yoon nag kenn nekkul ci kawam kenn nekkul ci suufam ngir ñépp la ci boo xamee fa ngay jaar ngir yegg ca umpale googu ko jigéen ñu baree baree bari umpale nag ba tax ñu di leen ci xor ñooñal ndax ki fi indi dossier bi soxna la soo xamante ni lii may waxtaanee da koo dal te mi ngi amoon problème boobu heure bii daaw ak ren daanaka def na atum yàlla ñu téye ko ci di ko ci xor ñooñal li waral ñu jël débat bi teg ko ci bañ jógee itam mooy dafa doon veuve boo xamante ne dañu koo takk façon yenee lekk alalam moo wane ne moom alalam kenn du ko asaaloo asa bombe kooka jàppante ko njabootam porté leen plainte dem ak ñoom ci yoon ñu ne xëy na wax ji foofa lay yem mu téye baat ba di ko dawloo pendant un an te li ma ciy dégg du jeex ma bëggoon nag tey ñu teg ko ci taabal ji waxtaanee ko. am na itam beneen bu ñuy bu ñuy juum loowee ñun jigéen ñi muy góor day nammuk caay-caay ndax bu leen fàtte ngembul saay-saay du tas da koy raccatal heure bu gisee maas ga sëgg bëre te mag mi xamuk caay-caay tàmbaliwu ko tey da koy mottali rek day tari rek ba tax na dangay nekk ak ñoom ñu dem ba doyal ci yow bëgg nga génn te benn charte du leen ca topp na fi jaan yaa ma jàngal sadik <laughs> bëgg nga génn te benn charte du leen ca topp ñoom nu ñu koy defee dañuy ñëw fekk la mu wóor leen ne yow mi dangaa bari bañ ku la jam ku nekk du naani ñu ñëw ne la boo amoon jom bala nga am ngor wala nga ami bokk wala nga am foo jëm di nga génn sama kër xanaa yow amoo foo jëm xanaa yow amoo ay mbokk nga daal di jaay sa rëy ak sa dammel sàmba yaay dooy la foru fawantukaay nga takk say bagaas daal di ne yaa ngay dem boo génnee avant ngay egg fa nga jëm ñu dem uti huissier mu ñëw def constat bi dangay xëy rek ñoon di la convocation ñu toppee la abandon de domicile conjugal am ci beneen bu ñu ñuy toppee itam boo xam ne ñun dañu ciy defug réer mooy fase naa la wax naa ko sa day wala wax naa ko sa baay wala wax naa ko ca jàkka ja nga daal di dem ne fanaax toog demoo uti certificat de divorce fàtte mu fàtte fekk ne ñoom dañ naan duma lekk ci cere ji waaye ku ci nar a lekk ma xëpp ci suuf ba mu xajam nga toog ba mbër mu dul dem Demba Jóob te du fawee Iba Maar ne salaamaaleykum ne dalay takk ñu xëy topp la bigamie ne dangaa am ñaari jëkkër di la yéegal di la wàcceel te su boobaa sëy bu mujj bi la ñuy tas nga perte buubu perte ceen nga perte la ko takkoon kon dafa am loo xamante ne dañ cee war a yeewu te pour ñu yeewu ci dañuy jëli ña nga xamante ne ñoo ko xam di ko liggéey indi leen teg leen ñu wax ñu yan chart la ak fan ak fan ak fan la war a mën a jaar. ndax ñu ni ñuy leen yéenewee bagage yi di yéwén ci biir néeg yi ni ñu leen yéenewee sañse bi di rafet ni ñu leen yéenewee arsenal yi ni ñu leen yéenewee wax ju neex ji ni ñu leen yéenewee leneen loolu la ñu yéenee tamit ñuy xam charte yi nu nu may ci biirub sëy ndax fat-fatlu dafa tàggalewul mbaam ak ay noppam te loo nekk te xamoo kañ lay jeex xamal la la ca war lañ la ca may fa nga ca war a tàmbalee ak fa nga ca war a yem ndax ki nga dëkkal lim lay jege jege jege fi say limite fi ay droit am limité fa la say bos tàmbalee yow di dem waaye boo ko xamul te seeg baadoo la porox ndóox day jël la mu moom ak la nga moom ne ko ràpp tey te naan la maa moom lépp du la sedd dara. jatu nag bañ koy wax soccet taxul woon ndax fekk na ko mu booti loxoom te loo xam-xam ma demba ma demba gën laa xam demba association femme juriste yaa ngi fi. te xeex àq ak yelli yelle fi jigéen rek ka leen tax a jóg waaye ñun itam léeg-léeg mbir day jóg ñu yëkkati ko ngir ñun ñu jàpp ne xëy na dañ koo tubaabal ba mu ëpp wala pour tubaab yi rekk la wala pour lii la wala pour laa la ba duñu leen gëstu duñu leen seeti te ñoom itam ni ma koy waxee bis bu nekk rek laa koy waxee waat daanu dajewul suuf ñoom it mënuñoo gàddu seenub saak buntu kër jeeg bu nekk ñu taxaw fa ne la mbaa amoo problème mënta nekk yow yaay am problème jóg dem fekki leen ndax nag bu leen fàtte ne lu daggee ci ron tàbbi ci dàmba tukkiwul dafa ñibbi kon loolu yépp dafay nekk loo xamante ne nit ki daf koo war a xam ndax àdduna dara mettiwul dara mettiwul loo xam mu noppal la mais loo umpale mu sonal la te sonal nañ ci jigéen ñi ba yegg ci lool lool lool lool lool lool